waa asalaamualeykum mbokki Sénégal asalaamualeykum mbokki àddina waaw ah, asalaamualeykum asalaamualeykum ñu ñaan ngeen partage ko mu yaatu lool lool lool lool ah, partage leen ko mu yaatu ñu amal waxtaan ak yéen macha allah comme niñ koy defee toujours Euh, ñu bañ koo def ci beew puukare walla tiitaru wala nuñ ko mën a waxee neneen voilà donc partagez leen massivement on a beaucoup de choses à discuter partagez massivement stratégie stratégie stratégie partagez massivement partagez et gonflez continuez à partager votre constance seen constance la leen yàlla fayee nii constance la leen yàlla fay te prudence prudence prudence prudence constance prudence prudence prudence waaye ouais, aujourd'hui on va essayer de parler en français de quelques de quelques euh, phrases et aussi comme on le fait toujours en d'autres langues mais prudence prudence prudence Partagez massivement. Après, on va discuter tous ensemble. Merci beaucoup. Voilà, partagez massivement. Partagez, partage tey amul kenn ku war a ragal a partager ndax demoon nañu ba à un moment donné Sénégal partage sax crime la fa woon donc tey da ngeen di wone seen bopp ne man ngeen partager mais wone seen bopp aussi ne que vraiment amatu leen dara musu ragal ga musu leen ragal donc euh, damay tàmbale ñaari alhamdulillahi euh, président Ousmane Sonko daan nañu fàttali toujours ne yàlla li yàlla def rek moo gën donc yàlla bu defee li gën dañuy ne alhamdulillahi bi neematihi bu yàlla defee leneen aussi ñu ne alhamdulillahi ala kulli haal donc dañuy ne alhamdulillahi ala kulli haal man gëm naa ne boobu mooy bi war ndax ba léegi macha allah mbir yaa ngi progressé ñu ngi progressé maanaam bal bi ci kaawu sénégalais yi la nekk il faut ngeen comprendre la balle est dans nos camps damay wax toujours ne ma ne kii sème la paix récolte la paix kii sème la paix récolte la paix ndax yàlla daan suñu kilifa yu baax yi daañ nañu ne toujours mujj bu rafet moo jarañaan mujj bu rafet donc man ba léegi du ma tàccu Macky sàll gëmuma Macky sàll ànduma ak Macky Sall waaye je bu diir këm mujj bu rafet moo gën ci lépp loo gis ci àddina bu fekkee Macky sàll xelam ñëwaat na ci bu gaaw mu bàyyi ñi nga xam ne mooy détenu politique yi yépp ba ci Ousmane Sonko delloowaat ko ay droit am right away parce que ñoom ñoo ko ko foqatil ak seen i tàppale nous on prend on n'est pas demandeur na leer déglu leen ñu nun nous on n'est pas demandeur de quoi que ce soit mais ñun suñu réew moo ñu gëna lépp loo gis ci àdduna bi ndax tey kenn du ñu ne voilà voilà réewu senegal dañ fa bëgg jàmm am fa te ñun ñiy xeexal Sénégal ñu ne déedéet bëgguñu jàmm problème la ñu bëgg déedéet déedéet ñun jàmm lañu bëgg on veut la paix dans notre pays quel que soit Alpha nag quelque ak prix bu mu mën a jar jàmm lañu bëgg dañu bëgg a dem ci ay élections au plus rapidement possible le vingt cinq février ñu tànn ki nga xam ne moom la askan wi tànn kenn ku nekk ci ñun topp nanguwaay boobu ñun ñëpp ñu tabaxandoo suñu réew nekkuñu ci ay deal ñun nekkuñu ci ay deal te du ñu yombal de Macky ku la ne dañuy yolomal buum bi duñ ko yolomal on ne le fera pas on va continuer à manifester on va continuer à résister jusqu'à ce que le Sénégal soit libéré su fekkee ne yow yaay wut jàmm donc fexeel Sénégal am jàmm suba bu Sénégal amee jàmm suba ñun amuñu luñ la jéebaane nous on est pour la paix on est pour le changement radical de notre pays tappale yi la ñu dul doxalati ñun tappale yi lañu dul doxalati amul benn tappale boo xam ne dinañ ko doxalati ci réew mi ñun Sénégal moo ñu intéressé le Sénégal avant tout le Sénégal après tout yow Macky Macky xam na ne ñun ragaluñu ko Macky xam na na ñun faalewuñu ko Macky la see Dieu yàlla ñun la àndal ñun yàlla ñun la àndal parce que yàlla ku dëggu lay àndal yàlla wallahi dëgg ak fen wax nañu leen ko nee nañu la dëgg bu jëlee escalier fen jël ascenseur da d'accord dëkk bi ma dëgg bi mën na ko maanaam fen jël ascenseur fen bi man na koo jiitu de dëgg bi moo koy mujjee yegg si waaye dëgg bi mooy doon ki ki fay law gis nañu li xew Sénégal tey tàmbale ko ndeysaan ci suñu frère xarim xurum karim xurum moom day dugg kaso di ree day génn kaso di ree ñoom Fadilou Keita ndeysaan doomu jaambur bu ñu jàpp kaso presque deux ans ma nga ca kaso bi ëpp na un an presque deux ans parce que dafa laaj benn question ñoom ñëpp génn nañu c'est des personnes qui n'ont rien fait ñi ñu génnee nii ci kaso yëpp amul benn doomu aadama boo xam ne dafa am lum ci def déedéet ay nit lañu ay innocent ay nit yoo xam ne dañu doon exercer seeni ay droit de manifester ñu jàpp leen ñoom ñaap dugal ci biir kaso bi jaay doole ku mel ni Jamil Sané parce qu'il était le trésorier de le trésorier de Pastef rétablissez les droits de Pastef yan borom tappalekat yi yan borom njuuj njaajkat yi yan jàppkat yi ak bàyyikat yi Moussa fal aussi ngeen surveiller ko de près parce que c'est un lâche et un traître Moussa Fall surveiller leen ko de près parce que dégg naa kontaanul fi mu nekk nii dégg naa yaramam neexul kontaanul ndax kenn déglootu ko kenn kenn topp ko kenn faalewu ko mais je vous donne un scoop président Ousmane Sonko man maa leen ne moom du nangu accepter benn génn dudul dañu bàyyi doomu jàmbur yi yëpp ñu génn ci kaso bi ci li ñu jot moom pourtant de bu bëggoon génn tey du fanaan ci kaso bi waaye dafa bëgg doomu sénégalais yëpp génn may waxaale rek la président Ousmane Sonko neewaale leen ñu rétabliraat passeport doomu jàmbur yi ñu jàpp yu mel ni El Malick Ndiaye yu mel ni Pape Alé Niang ak yow ci sa bopp ndax ñu nit ci diaspora bi dañ leen soxlaa gis voilà président Sonko du waa Sénégal rek la soxla de du waa senegal ñoo la soxla ñun ñoo la gën a soxla ñun ñoo la gën a bëgg a gis voilà président Ousmane Sonko ñun ñoo la gën a bëgg a gis nous on n'a plus besoin que toi ñu jël la waa Sénégal ñoo xam kaay fii ak ñun ci diaspora bi ñun ñoo la gën a soxla la diaspora a besoin de te voir voilà tu nous manques beaucoup ñun ci diaspora ñun ñoo la gën a bëgg a gis Amidia Amidia aussi déedéet du ma ne sax Amidia aussi Amidia d'abord parce que ja aussi day mel ni moom moo ci topp déedéet Amidia d'abord Macky Sall looy xaar pour bàyyi doomu jàmbur bi Amidia mu ñibbi këram Amidia jigéenu Sénégal lan ngeen di bàyyi pour wax Macky Sall mu bàyyi Amidia mu ñibbi këram góoru senegal lan ngeen di xaar pour bàyyi Macky Ami moo war a ñibbi këram suba Ami Dia moo war a njëkk ci senegal yi ñibbi seen kër suba Macky Sall Ami Dia cette doomu jàmbur boobu doomu jullit boobu Ami moo war a njëkk ñibbi këram Ami Dia les femmes galanterie rek bàyyil jigéen ñi ñëpp ñu ñibbi seen kër après nga bàyyi xale yu góor yi ñëpp dinañ ñibbi waaye bàyyil jigéen yi ñu ñibbi seen kër les femmes non femmes non maman bàyyil jigéen yépp ñu ñibbi seen kër libérer le Sénégal Macky libérer le Sénégal gars yi maa ngi leen di wax bu ñu nelaw ne laissez pas don't let yoo guards down américains yi dañ koy wax tout le temps don't let your guards down Ibrahima Doucouré gars yaa ngi bind gars yi écrivez les noms de vos parents qui sont toujours là-bas ñoom Hannibal Jim defe naa moom gisuma ñu bind ci ñu ñu bàyyi bàyyi leen doomu sénégalais yëpp ñu ñibbi ñi nekk aussi en exil yëpp dañoo war a ñibbi seen dëkk nekk ci jàmm ñoom Ousmane Diagne ñoom euh, Ngagne Demba Touré tout le doit rentrer au Sénégal et être en paix na ñëpp ñibbi nekk ci jàmm ñu tëgg ay élection le vingt cinq février ku mën sa morom daan wa illaa yéen a xam ngeen xool lépp loo xam ne moo gën ci sénégalais yi ñu def ko au plus rapidement possible mais après le 2 avril moom Macky Sall mënta nekk président du Sénégal loolu na leer je ne dis pas de le faire mais si il demandait de peut-être repousser des élections de une semaine de deux semaines qui est normal une semaine deux semaines parce que perte nañu de semaines de campagne pour ñëpp mën a jëli seeni ay carte d'identité parce que banditisme bi xew banditisme bi xew dinaa leen ko wax dans la diaspora et Macky Sall tu dois veiller à cela au plus rapidement possible pour doomu sénégalais yi jot lii nga xam ne mooy seeni ay carte d'identité Macky Sall sa consulat yi ak sa ambassade yi ak sa préfecture yi jox leen sénégalais yi seeni ay carte d'identité a ngi bañ a jox sénégalais yi seen carte d'identité commencé ngeen continuer ngeen banditisme bi banditisme bi ngeen nekkoon yéen a ngi koy continuer vous continuez au banditisme de récupérer les cartes de d'autrui ngeen jàpp carte d'identité jàmbur yi bañ leen ko ko jox delloo leen sénégalais yi seeni ay carte d'identité c'est ça la vérité donnez les sénégalais leur carte d'identité jox leen sénégalais yi seeni ay carte d'identité amul benn raison ngeen arrêté continuer jàpp li nga xam ne mooy carte d'identité sénégalais yi gars yi bind leen yéen ñëpp ñi am mbokk ci biir kaso bi écrivez les noms ñoom dañuy liir commentaires yi dafu ñu jinne daaju leen il lit les commentaires et il écoute les lives ça je vous les assure Adji Ndao Adji Ndao notre sœur de la diaspora nous demandons sa libération immédiate libéré leen détenus politiques yi soo leen bëggee jàmm ci réew mi libere tout le monde sans exception ma bëgg a profito waale suñu mbokk bay Fall yi Touba Baye Fall Yaay Fall sàmmkatu Touba ak loo leen mën a tuddee seen bopp alhamdulillahi rabbil alamin ñu leen di ñaan ngeen xam ne taalibe yi seeni ay doomu ndey lañu doomu ndey taalibe yi tamit Baay Faal yi yéen a bokk il faut ngeen delloo siwaat seen xel ki nga xam ne moo ñu bëgg a jaxase ñun ñëpp ñu reyante ci suñu biir ba ay élection du jaar yoon kooku léegi mu dem bàyyi ñu fi moytu leen seen bopp moytu leen reyante beeg dóorante bi ay kiyee ñu yónnee këlee ñu yónni ñuy dóorante xale yi aussi delloo siwaat leen seen xel rek te Baay Faal boo leen dajel waxtaan ak moom jarul reyante c'est pas le moment jaru ko ñun nañu continuer manifeste suñu ay droit fiñ ko waree def waaye dëkk bu sell ba Tuuba maa ngi ñaan xale yi ñu waxtaan ci suñu biir te ñu doxal li bu ñu may noon ngi lim mbëgg may wax sëñ Muntaxa Mbàkke Bachir Mbàkke Balla Aysa yàlla na fi yàgg lool te wér sëñ Muntaxa sëñ bi dafa am ci sa njaboot ñuy ñaxtu pour Macky Sall abal ñu suñu réew sëñ bi mu am aussi si sa njaboot ñu la jege lool yu lekk alal bu bari ci gouvernement bi ñu bëgg a jaxase sénégalais yi sëñ bi dañu bëgg nga xam lool de sëñ bi am na ci ay soxna yu am ay tur yu kawe sëñ bi yuy lekk alalu askan bi di naan deretu askan wi sëñ bi Mbàkke Balla Aysa ci yar lañ ci yar ak teggin lañ ko teg nag waaye Mbàkke dañu bëgg nga xam ne ci sa njaboot am na ci ñu jub ñu bëgg ay élection am senegal ci sa njaboot mu am ci ñu am ay dossier sëñ bi bëgguñu élection am senegal bokk na ci ay soxna yu yu kawe ci tur bokk ci aussi ay nit yu la jege lool sëñ bi Mbacke Balla Aïcha ñu bëgg nga bàyyi loolu xel yeggee leen sëñ bi message bi ne leen ko ñun dañu jox cër yoonu murit jox cër l'islam ñun yoon yëpp lañu jox cër bàyyi leen loolu xel dañu ne ñun dañu bañ ku ñu noot dañu bañ ku ñu noote voilà waa ji sant Diallo te nga dugg fii te nga ne Allah bonni politique le ton change le ton n'a jamais changé nous on continue à résister on continue à demander nos droits lépp luy suñu droit dañ koy laaj fan nga ñu mësee dégg kenn ci ñun génn baal leen ma ak waaw def naa lii fan nga ko mësee dégg on est constant ñun dañoo constant ci li ñuy def ba vendredi bii dinañu leen ko woon ndax vendredi dinañu marche doxu ñaxtu ñuy ne alkaati yeeg gendarme yi dellu leen ginnaaw de dellu leen ginnaaw ngeen encadré doomu sénégalais yi ngeen bàyyi cinq millions de sénégalais génn ci mbedd mi déglu leen loolu bàyyi leen cinq de sénégalais génn ci dëkk bi ñun amuñu noon Sénégal amuñu ñun amuñu noon amuñu sens interdit am nañu nag ay adversaire politique am nañu ay frères yoo xam ne yu réer lañu te gëm nañu ne ñoom ñëpp dinañu dellu si incha allahu rabbi ndax ñoom ñoo réer ku réeroon ci àll ba nga gisaat sa yoon yow yaay dellu si waaye damay na sénégalais yi vigilance vigilance et constance nañu continuer vigilant ñu continuer constant bu ñu teggi suñu tànk ndax amaguñu dara xam nga Macky Sall lan la def nii lim ñu nangu woon la delloo mais ana plus y a plus amuñu plus de li mu jëlan ci ñun lañu de la ñu nekk di delloo te loolu sax delloo ko ba mu mat mooy suñu àq suñu yelleef jàpp doomu aadama yi tëj leen ci dëkk te bokkuñu ci benn banditisme donc dama ne na Macky Sall bàyyi doomu aadama yi ñu delluwaat seeni kër ñun ku ñu bëgg a jaxaseeg sëñ bi wala nga bëgg ñoo jaxaseeg bépp yoon c'est peine perdue parce que ñun cofeel gi Touba am ci ñun ñun xam nañu ko te cofeel gi ñu am ci Touba xam nañu ko bis bu ne ay sëtu sëñ Touba ak kan ñoo may woo di ma sant di ma gërëm ci liggéey bi ñuy def bis bu ne nag ay sëtu sëñ Touba ak kan ñoo ñuy woo direct di sant li ñuy def di ko gërëm di rafetlu suñu liggéey te fu ñu dajeeg ñoom ci mbedd mi ñu ñaanal ñu te ñu ne ñu seen liggéey rafet na donc ñun mënuñoo manqué respect yoonu murit manta am mënuñoo manqué respect yoonu tiijaan manta am man nañoo bañ a juboo ci ay kàddu te bu ñu jubawul dañuy wax li nekk ci ñun ñun du ñu dellu ginnaaw de dañuy wax li nekk ci ñun ndax yàlla ak yonent bi yàlla rek lan nit warta jàkkaar lool di wax yenn nii waaye yàlla sax da koy ñaan yàlla sax da nga koy jooy yaa allah liñ ma teg metti na teggi ma ko yaa allah sonn naa mettit bi bari na yaa allah teggi ma ko yaa allah yow yaay kii yërëm yërëm ma yaa allah yow yaay kii maye may ma yaa allah yow yaay borom asamaan ak suuf yaa zil zalaali wal ikraam yaa allah yaa moom yaa moom yaa moom yaa allah génne ma ci lii dañ koy jooytu te moom moo ñu sàkk donc bu dee sëñ bi aussi dañu gis ne ay doomu aadama ñu ngi ci yoon bu baaxul dañuy ñaan sëñ bi mu wax ak ñoom ñu dellu ginnaaw sëñ bi ñii buñ la waxloo ba dugal la ci guute ba election amul tuubaa comme ñoom niñ koy layam layame sëñ bi dinga génn ci xolu sénégalais yu bari di nga ñàkk respect bu bari ci sénégalais yi te ñun ñaanaluñ la lool de ñun ñaanaluñ la loolu ñun dañ fi ñaan nga yàgg fi lool te wér te sa cër yokk te sa man-man yokk te say ñaan continuer nangu waaye gis nga sëñ bi am na soxna su la jege lool di dealer di business kat am waaju la jege lool di dealer di business kat ak beneen waay bu la jege lool di dealer di business kat sëñ bi buñ la dugal ci benn guuta luñ la wax ne leen mukk loolu du am ci Sénégal lañu ne nañu am ay élection ku man sa morom daan sëñ Touba daanaka bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk tabaxal ñoo njëkk taxawal démocratie ci Sénégal ndax démocratie rawul nga jox nit seeni ak ak seen yelleef démocratie paasewul lool sëñ Touba musuñu koo gis mu dox ci lu dul yoon sëñ bi ay doomam yëpp jóge fi sëñ Murtada sëñ Saaliw sëñ Fàllu ah eh, eh, maanaam lim juum ñun ñëpp ñu xam leen sëñ bi ñooñu yëpp jaar fi ñu def liggéey bu jaggi dayoo ci senegal donc ñu ngi ci sët yi bu dara yàq seen tur bu seen der bu baax bi bu ko dara tàkkal band yi jóg pour boole leen ak sénégalais yi bu leen daanu ci seen nas-nas de njuuj njaaj la bu leen ci daanu déedéet sëñ bi ku la na ñun gëmuñu yoonu murit wala ñun ay saagakat wala ay kastekat wala ay tooñkat wala ay waxkat lu bon walla ay saaga sëriñ déedéet loolu amul loolu amul de ndax daanaka ñun ñëpp ay murit lañu murit mooy ku gëm yàlla muridul laa ñun ñëpp ay murit lañu ñun ñëpp ay murit lañu ñun ñëpp ay murit lañu ñun ñëpp nag muridul laa ñun ñëpp laa wax ay murit lañu ku dul murit gëmoo yàlla loolu mooy dëgg damane ne sëñ bi ñu ngi ñaan di delluwaat di ñaan ci sa man-man ci li nga xam ne mi ngi sa loxo nga wax gaa yi dëgg ñu dellu ginnaaw Cheikh Coro loo ñu ñu koy jiiñ yëpp dara amu ci sëñ bi Cheikh Coro du kuy yee fitna du kuy yëngal dëkk Cheikh Coro melul noonu Cheikh Coro yar ngeen ko yar bu baax dafa am yar am teggin am kàddu léegi nag sëñ bi ci politique la ñu ne ñun ñëpp yaa ñu jaboote léegi borom parti ya la ñu ngi xeex borom parti ya la ñu ngi xëccoo borom parti la ñu ngi xëccoo bu mbir mi jaxasoo ñu ne la xale sonko yi la déedéet sëñ bi du ñoom de ndax waa waa koñ bale ñoo fi jóge dem passé fi dem jàllalu fi ay loi sëñ bi ngir gàllankoor suñu ay élection ñun lool lañuy xeex suñu àq ak suñu yelleef loolu rek la ñuy xeex sëñ bi ñun xeexuñu diine xeexuñu tarixa ndax ay jullit lañu ak kan loolu laa bëggoon sañ bi ngeen fexe mu jot ci message bi ndax daf ñuy déglu ndax am nañu ci ay soppe ñun dañuy jot sëñ bi sañ bi sopp nañu laal donc sëñ bi lii lañu la doon ñaan Mbàkke Balla Aïcha yal nañ fi yàgg lool te wér nag incha allahu rabbi dama ne bàyyi leen détenu politique yi ñu ñibbi seen kër waaw bàyyi leen leen ba pare nag suba gars yi la marche est maintenue marche bi suba c'est maintenu sénégalais yëpp laa bëgg ngeen xam loolu marche bi c'est maintenu changé wul marche bi changé wul de voilà pour sénégalais rek ngeen xam ko marche bi changé wul marche bi changé wul pour sénégalais yi ngeen xam marche bi changé wul it change marche bi waa së sëñ Thiam bisimilah. salaamaaleykum. dama nekk di rek da nga bëgg a participer. waaw man dëggal ndey Macky Sall. ah ah déet <laughs> waaw bisimilah ñu ngi lay dégg. salaamaaleykum sama gars yi. c'est la lutte libère. ngeen leen ngeen ñokk Macky Sall soof na ñàkk na jom réew na yabaate na. toroxal na waa Sénégal yi ruus noonu la leen. wàccee na potu Sénégal yëpp ci àdduna bi dëkk yëpp africain yëpp kat nañ Sénégalais yi léegi. foo dem ñu ne la yéen wax rek wax rek êtes-vous des hommes loolu la ñuy laaj ndax ay góor lañ lañ ñuy laaj ba lool lañ may laaj ci nii man ko waa ay góor lañ de dañoo bëgg a jàmm rek waaye Macky Sall moo bon jaajëf taxaw leen fi ngeen taxaw bu leen négocier dara waa Pastef buñ négocier dara nañ taxaw fuñ taxaw puus Macky Sall la ba mu ñu doog ko continuer parce que arrière amatu ji mënatuñoo arrière te jekku nañ ko donc buñ ko baal nañ ko puus ba mu daanu ci ndox mi ñu taxaw bildaat suñu dëkk tabaxaat suñu dëkk ba mu mel ni mu war a mel parce que Sénégal am na lépp su mooyee doomi xaraam yi jiite ñu ngeen baal ma ci terme bi su mooyee nit ñu bon ñi jiite ñu ngeen ma ci terme bi. Mhm. parce que ñëpp bonuñu waaye ñi gën a bari ci ñoom dañoo bon dañoo iñaan dañoo soxor suñu alal ji yëpp sàcc nañ ko jox ko seen doom ñu nekk ci fii nii ci dëkk yi ñu nekk nii comme Amérique yi di jàngee ci ay université yoo xam ne ni ñoom mënuñu ko fay buñ sàccul. non seulement dañ fiy jàng si mais dañ leen di jëndal ay appartement ki ay kër ñu dëkk fi te suñu xaalis réew mi lañ koy defee. ak ay oto ak ay oto yu seer. ak ak oto yu seer voilà dund nag lifestyle boo xam ne nii yow footballeur yi rek ñoo ko mën a dund wala sportif yi nga xam ne ay milliards lañ leen fay ñoom rek ñoo war a dundee loolu mais ñoom dañuy sàcc suñu xaalis di ko jox seen doom yi wala seen yi di ko sàkkaat ci ñoom di loolu mais ñun waa Kër Ngumbu nga xam ne man foofu laa jugee ñun amuñu école lu ñu jàngee. waa la xaar da nga xam ne foofu laa jàngee école primaire seen école yi ba léegi ay sàkkat la yoo xam naa ne boo demee euh, Maka Kulibantang wala Medina ga nga jógee. jidda même waaw mooy dëgg de voilà mooy dëgg. loolu mooy dëgg nga dem Dakar boo demee man daaw jéeg bi ma demee Dakar dem hôpital Fann dama fa dugg rek feebar. ndeysaan te nit laa doon yóbbu. boo fa bàyyi koo dem fi ñuy wax naan hôpital boobu nekk Yoff ñu tuddee ko. xaw ma nan quoi. dalal jàmm dalal jàmm. non non pas dalal jàmm pas dalal jàmm. hôpital bi nekk Yoff noonu rek ci boru Brèche doole bi. Mhm. Euh, ñi dëkk Dakar xam nañ ko mais Yoff la nekk noonu soo wàccee ci VDN bi noonu ci yoonu euh, autoroute bi noonu ba wàccee noonu rek ci ci Yoff noonu fii euh, Brèche doole bi nekk man dem naa fa. ok di visité sa yaram day taw sa xol jeex. du daan teg du daan teg de ah. non non du dantek du boo ak tubi la ko trou chrétien la yore yorul turu jullit yi euh, euh, trou chrétien la yore mais mu ngi foofu rek ci yoof noonu ci mais boo mel ku jëm ci aéroport bu Philippe Philippe Senghor Philippe Senghor Philippe Senghor Philippe Senghor te ci hôpital yi tane la bokk wallaahi boo fa demee grand doo mën a faju yow boo fa demoon bëgg a doo mën a faju ndax boo fay dugg rek feebar ndeysaan waxuma laa ñi docteur yi dañuy génn rang xam nga ne ñii leen di fay doy maladie yi ñu nekk foofu bilaay da ngay te na moo xam ne nii am na lépp Macky Sall doomam ji euh, nu mu tudd. ah Amadou Sall Amadou Amadou waaw. naar yi dëkk Dubaay nee nañ ma dafay tabax ay immeuble yoo xam ne ñoom dañ koy xoolaat. lu dëgg la il a des milliards il a investi des milliards à Dubaï. milliards et milliards la sàcc am na samay xarit yu nekk Miami fii Florida Miami. booy bi day dem foofu day di la ñoom. waaw. ah dañuy dund comme pas possible. Mhm. te bi ñuy def loolu sénégalais bi nga xam ne moom mu ngi ci àll bi war a jàngi wallaahi digal fooy sax da leen di të. Mhm. bi nga xam ne mu ngi Dakar di liggéey soo amul kii sax da ngay découragé ba doo liggéey parce que li ñuy fay boo ci bëggee dund après nga xam benn Ousmane Tounkara bu nekk Amérique bu la yóbbante benn cinquante mille pour nga mën a mottali say dund. te da ngay liggéey chaque te loolu yëpp ñoom ñoo ko waral parce que àll ne mi la ñuy jël di ko séddoo donc daal man li may conseillé mooy ngeen continuer jël seen responsabilité ñu teg réew mi ci yoon ku nekk mën a am sa wàll ci réew mi parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk du yoon ñaar téeméeri nit rek bugg a séddoo alalu Sénégal yëpp ñi ci des yëpp di taxawaalu ci mbedd yi donc daal seul lal lutte libère jaam bu bugg ñu bala nga dem sa yoon da ngay xeex ba sa mbuumu jaam dakk nga moom sa bopp mën a demal sa bopp mën a liggéeyal sa bopp mën a moomal sa bopp pour nga moom sa bopp donc daal ci gàttal Sénégal bu buggee moom boppam dañ fay jëlee ñii nekk fa di yàq indi fa ñoo xam ne nii dañ ko defar te ñooñu yaakaar naa waa Pastef yi ñoo fi tane ñoo fa nekk te yaakaar naa ñoo fi gën donc bu ñu yeboo rek ñu jàppale waa Pastef mais nag loolu bu mu mën a ne. Hmm. il faut Sénégal yëpp taxaw xeex ak ñoom quoi. jërëjëf xeex xeex laa wax nag quoi ba xeex bi jeex. xeex ba gañe rek salaamaaleykum kooku moo doon suñu xarit Amath Thiam Mandingo voilà donc gars yen yéen ñëpp ñu leen di ñaan suba euh, vraiment FDD mi ngi organiser une marche pacifique la ñu wax organise une marche front pour la defense de la démocratie FDD front pour la défense de la démocratie FDD Macky Sall ñu ngi lay dànkaafu nag ñu ngi lay dànkaafuwaat ndax yàgg nañ laa dànkaafu lii seen ak ak seen yelleef la bàyyi leen sénégalais yi ñu marche ci jàmm boo leen yëngalee marche bi dina de marche bi dina dina déborder nekk leneen loo xam ne ñaanu leen ko amaana sax sa déloger pale xëj na ci donc bu ma doon yow suba pour la première fois dans présidence yow ci sa bopp bu la neexee demal ci marché bi nga manifester parce que sénégalais nga pour Macky Sall jóge fekk jàmm ak salaam yow Macky Sall ci sa bopp war nga mën a dem manifester pour démocratie dellu si waat Sénégal ndax yow loolu nga doon wax ci Ablaye Wade voilà dama suba waa FDD ñu ngi organiser marche pacifique vendredi xam ngeen lu tax marche vendredi neex mooy vendredi yéen ñëpp da ngeen war a dem julli ji juma ville dem leen julli ji juma ma euh, masaalixul jinaan ngeen julli ji juma ci jàkku ville yooyu yëpp boo leen jullee juma ginnaaw boo leen jullee juma ngeen dem ci marche pacifique bi yéen ñëpp venez nombre On veut voir au moins, au moins un million de personnes pour la première fois dans les rues du Sénégal. daan nañu gis trois cent mille quatre cent mille cinq cent mille trois cent deux cent cinquante mille gis nañu lu ne waaye suba la ñuy woote one million man march suba FDD dafa woote pour sénégalais yëpp génn donc soyez un million de sénégalais dans les rues de Dakar yéen ñëpp la ñu invité tous les politiciens gars yi parti politique yi yëpp mënuma lim ñëpp ndax xaw ma turu vingt personnes yëpp <coughs> waaye ñi ma ci xam ñoom Déthié Fall ñoom Abdourahmane Dieye ñoom Anta Babacar ñoom Mimi Touré ñoom nangam nangam nangam ñoom Thierno Bocoum yéen ñëpp ñoom Thierno Alassane Sall maanaam yéen ñëpp Pastef ñoom Birame Souley ñoom euh, El Malick yéen ñëpp gars yi invité nañ leen suba na ñëpp génn ji Mari Sagna moom loo moom moom invité ko fa problème la ndax moom da ko fay fekk moom invité nga ko na ñëw invité woo ko na ñëw donc gars yi yéen ñëpp la ñuy ñaan pour suba un million de personnes génn ci mbeddu Dakar yi un million de personnes dama leen koy ñaan de moomuñu leen kenn mënul forcer kenn kenn mënul wañaar loxo kenn mais c'est un fort signal à lancé gis nga suba un million de personnes bu ñu génnee incha allahu rabbi day yombal transition bi nga xam ne moom la ñuy waaj amal rek bu soobee yàlla ci fan yii voilà gars yi yéen ñëpp nag ñu ngi leen di ñaan ngeen comprendre ne victoire bii li c'est la victoire de tous les sénégalais sénégalais nag ndeysaan da ngeen baaxoo mën a mën a sama xarit yi sama am di jàmm yi lii du combat wu benn nit lii du victoire benn nit benn nit bu la ne man maa tax ñu def lii wala le dafay fen ndax li victoire bi ñu am Pape Alé Niang contribuer na ci Mola Morgan contribuer na ci ba ñoom Akhenaton sax ndeysaan contribuer nañ ci ñoom Jiji ñoom Ousmane Tunkara ñoom Demba ñoom Paate ñëpp ku lim juum ñëpp a contribuer ci lii ëpp na ci nag ci sénégalais yi noppi te waxuñu waaye ñu ngi jëf contribuer nañu ci lii donc ngir yàlla rek bu ñu kenn rey ak mana mana ma defoon man maa tax lii am man maa tax kenn taxul lii sénégalais yéen ñëpp a tax tàmbalee ko ci Seydina Ousmane mu sell mi la constant lii dem nag ba ci ñoom Thierno Alassane Sall ak ñëpp jox leen leen seen ak ak seen yelleef ba ci taa Mimi Touré Mimi Touré elle a contribué géant gigantically à ce mouvement ma wax leen ko léegi yéen ñëpp nag ñoom Ousmane Diagne ñoom euh, maître Ngagne Demba Touré macha allah chapeau ñoom Biram Souley Diop ñoom gii Marius Sagna les journalistes ñoom Salma Fall ñoom Coromaxu Mandela billahi waa jële nekk euh, euh, Walf Fadjri nu mu tudd waa ju ñuul ji sew oh le gars là je l'aime non le gars extraordinaire waxuma sax Moustapha Diop de le gars là qui est véridique direct maam Biram wàcc maam Biram maam biram billaay maam biram maam biram yow daal maam biram daal maam biram tu es l'homme de l'année ku ko wax wax dëgg ku ko waxul aussi ah ah vraiment maam biram wàcc et ces détenus est-ce que détenu politique yi yéen xam ngeen li ngeen contribuer ci ci ci démocratie wu Sénégal yéen ñi mën a toog ci kaso at ak ngor at nga tëdd ci biir kaso ak sa ngor Abdou Karim Xrum Xax billaay wallaay doomu ndey man dama laa naw au nom du créateur Abdou Karim Cheikh Omar Diagne xali Falidou Keita yéen man dama leen naw man dama naw billahi wallahi tallahi dama leen naw au nom du créateur vraiment man bu ma toogee fii di xalaat détenu sénégalais man musuma gis ndaanaan yu mel ni yéen ci àdduna bi nekk ci kaso boo xam ne dañ lay toroxal suba guddi ngoon lekk bu normal sax doo ko am nga toog ànd koog sa ngor ah last but not least le président Ousmane Sonko lom wallahi tu n'es pas l'homme de l'année déedéet Ousmane Sonko yow doo l'homme de l'année déedéet tu es l'homme du siècle yow tu n'es pas l'homme de l'année déedéet yow sa maqaama dafa dépassé dafa dépassé foofu tu es l'homme du siècle après tout ça mes amis je ferai quelque chose que je n'ai pas l'habitude à faire je dirai aujourd'hui ici devant tout le monde entier merci à Macky Sall parce qu'il nous a permis de savoir ce qui est la vraie démocratie merci Macky Sall Macky Sall ñu ngi lay sant di la gërëm parce que yée nga ñu ñun ñëpp doomu sénégalais yu doon nelaw yëpp yi nga xam ne seen patriotisme defuñu ko woon ci seen réew yow Macky Sall tax nga tey ñun ñëpp sénégalais yi suñu patriotisme yeewu for that I thank you monsieur le président merci beaucoup merci beaucoup le président Macky Sall Tu as trop contribué au changement du Sénégal. Parce que sans toi, il n'y aurait pas de Ousmane Tunkara, il pas de Mola Morgan, il n'y aurait pas tant d'autres Sénégalais. Sans Merci. ñu ngi lay sant di la gërëm lool si suñu président bu bees nag muy Jomaay Basiru Jomaay Fay ñu ngi lay sant di la gërëm Basiru Jomaay nit dof kenn du ko sant yow yow vous ne comprenez pas si vous comprenez la personne de nit dof nit dof dafa dépasser ay sant ah sëñ bi sëñ bi dama laa fande billaay wallaay tallaay nit dof su ma mënoon ne su ma mënoon a rap nag nekk rappeur su ma mënoon tànn métier tey ndax yow rappeur laay doon nit dof merci billaay wallaay tallaay tu nous rends fiers notre frère Aliou Sané Aliou Sané de Yanamar wallahi billahi tu es extraordinaire tu t'es arrêté quand personne ne le faisait tu as pris tes responsabilités tu as pris tes responsabilités Aliou Sané billahi merci mes frères merci à vous tous man de du ma sonn na jërëjëf parce que gëm naa ne yàlla rek moo am seen pay man naa fee toog ba déwén di lim ku lim juum ndax maa ngi lim rek waaye daanaka maa ngi jum ñoom dongo Diop ñoom uh, ndeysaan ñoom uh, bari ngeen bari ngeen bari ngeen de billaay wallaay tallaay bari ngeen ku lim juum vous êtes sama yeneen frères yi demul prison aussi genre ñoom Issa Diène ces personnes qui sont là ndeysaan uh, Moustapha suñu frère Moustapha le le Moustapha qui en France suñu frère Moustapha ak yeneen maanaam itali tous ces activistes ñoom Cheikh Anne yéen ñëpp ah sénégalais ñoom Malang Gassama tous ces sénégalais qui contribuent te billahi wallahi xaaru leen ci jaaraama ñoom Malick Diassène xaaru leen jaaraama ci liggéey bi dangeen di def rek da ngeen di def rek ñoom Marie Jeanne ñoom Grand Dramé yéen ñëpp da ngeen di def rek kenn xaarul jaaraama suñu siste Oumou Diallo yéen ñëpp ngeen di def te xaaru leen jaaraama ñëpp di xaar ñun sant ñëpp di gërëm ñëpp suñu journaliste bu spécial bi grand pape Alé Niang chapeau à toi we thank yu you doing a great job mais l'histoire retiendra comme niñ koy waxee toujours rek dañu nekk ci benn lancé dañu nekk ci benn tournant bu décisif ci histoire du Sénégal histoire boobu ça sera écrit un jour te billahi képp ku liggéeyal Sénégal sa tur dina nekk ci histoire boobu nu on ne sera pas ces Sénégalais qui seront par l'histoire de leur dé déedéet l'histoire retiendra gis nga histoire Sénégal tey ku koy bind di nga am ay tur yoo xam ne di nga ko ci engravé pour toujours suba nag gars yi ñu ngi leen di woo ci marche bu mag bi marche bi nga xam ne moom la ñu woo Sénégalais yëpp marche pacifique la ñu woote yéen ñëpp ku kontaan ci li nga xam ne maanaam réewu Sénégal bëgg ngeen mu changer yéen ñëpp génn leen suba massivement massivement parce que nag bàyyi nañu diw bàyyi nañu diw taxul ah doo marché de loolu bu leen ko def de loolu erreur catastrophique la gis nga boo toogee seen kër yi suba ne wala mbir yi conseil constitutionnel déedéet conseiller constitutionnel décidé woon na déjà les vingt candidats bi Macky Sall di génn di changer date bi donc conseiller constitutionnel jëlaat na ndogal nee na la Macky sàll def dàq nañ ko li député caay-caay yële def dàq nañ ko donc élection dafa war a am loolu la conseiller constitutionnel dogal mais nag loolu li koy gën a dogal mooy ñun sénégalais ñu génn ñu dox il faut ngeen génn ñu génn dox doxu ñaxtu loolu mooy dëgg gars yi ay Ramatulaay rebelle ay wala bari ngeen bari ngeen gars yi bari nañu les sonko yen non sœur les sonko yen yéen ñi ci tiktok bi dama leen naw de ay xale yu jigéen yu jàpp teewu bàyyi ngeen bari fi lool ay morom voilà yéen ñëpp ndeysaan ak euh, tigresse tigresse gis naa ne temps yëpp ñu ngi noot sa page waaye gis nañu sa liggéey ñu ngi koy partager ñu ngi koy suivre nga dem aussi ci détenu yi ndeysaan euh, sa suñu suñu doom bi nekk Tamba Tambacounda la notre sœur l'entrepreneur ndeysaan entrepreneur suñu sœur entrepreneur bi nekk Tamba jëf ñu ngi lay sant di la gërëm sa liggéey rafet na liggéey nga liggéey bu dul jeex ci Sénégal on l'a vu ñun ñëpp gis nañ ko dañuy ñaan rek sénégalais yi ñu continuer constant dama leen di ñaan de constance bu leen juum bu leen juum de bu ñu juumee li ñu liggéey yépp dafay yàqu bu kenn juum sama frère Mam Paate Mam Paate ñu ngi lay sant Mam Paate da ngay seetaan direct bi walla waaw allo allo allo alo waaw dama nekk a voilà parfait voilà jërëjëf jërëjëf merci <coughs> voilà gars yi comme ni ma leen ko waxee rek suba ñu ngi invité ñëpp ci marche bi ñëpp kayis foofu kayis foofu ah ah Kayz Fof moom kenn du ko ne bravo Kayz Fof c'est notre frère ça c'est mon neveu à moi-même Kayz Fof euh, kenn du ko ne merci ñun ñun encouragement rek encouragement voilà dañuy encourager les patriotes rek gars yi nag pour ma yëgal leen rek ne ñoom woote nañu réunion d'urgence fi may wax ak yéen nii Macky Sall ak ñoom woote nañu réunion d'urgence parce que panique totale dans le pays ya y a d'autres qui sont d'accord avec la libération des patriotes. Il y a d'autres qui pas d'accord. ndax naankatu deret yu mel ni El Hadj ak ñeneen ak ñeneen ak ñoom Madiambal ak yeneen dëmm yi ñoom Moustapha Diakhaté ak ñeneen ak ñoom Yérim ak ñeneen ak yeneen nit yu bon ak général Moussa fal ak ñeneen ñoom d'accorduñu ci lu ñuy libérer patriotes yi nii d'accorduñu ne Zahra waaw Zahra ndeysaan Fala Fleur Tigresse macha allah mes waa Zara Zara Tigresse Falla Fleur yéen moom chapeau Juan Branco Juan mu sell mi Juan merci Juan à toi Juan Branco merci l'avocat international oh Juan ce que tu as contribué à ce combat personne ne peut le définir voilà Malick ngi lay la gërëm ñu ngi lay déglu Malick bismillah kii waaw Tunkara. waaw ñu ngi lay ziar c'est hmm? Malick euh, Yasser. Ah. Hmm? ñu ngi lay delloo ziar bismillah. Ousmane tu es à remercier. man dama personnellement ma lay remercier. encouragé rek. nañu def encouragé je te remercie d'abord je te remercie d'abord. <laughs> parce que nit bu defee benn mbir. waaw boo xamante ne si ñëpp la waroon moom kese mu saafoo ko def ko. Hmm? danga koy remercier. yàlla baax na bismillah loolu c'est pour euh, encourager les autres. Mm-hmm. ñi nga xam ne defuñu parce que nit ku nekk bëgg nga jërëjëf. Mm-hmm. ñoo ngi lay sant. jërëjëf di la gërëm. au nom de tous les Sénégalais qui se trouvent ici aux États-Unis merci. di la gërëm di la sant au nom de tous les patriotes. merci beaucoup jërëjëf di la la sant au nom de Ousmane Sonko. jërëjëf. voilà parce que li tax loolu. Mhm. nit bu defee lu baax da nga ko koy waxal. jërëjëf ci kanamu mbooloo mi yëpp tam te fii nii ngay toog ñëw taxaw di def li ngay def. Mhm. te kenn fayoo la ci dërëm. jërëjëf man ak yow ànd nañ gis naa li ngay daj. Mhm. kenn joxu la xaalis kenn joxu la dara. tu dépenses ton di dépenser sa temps. di def li ngay def nii yëpp te loolu yëpp liñ ci jublu rek moom mooy Sénégal baax. yàlla baax na waaw. waaw bu dee rek soxla woo dara. yàlla baax yow rek soxla woo dara mais li nga ciy jublu yëpp moom mooy Sénégal baax. Hmm. bu boobaa daf lay noppal noppal ñu. merci donc ñoo euh, ngi lay remercier. di remercier aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo indi ñoom ñoo participé ci combat bi yëpp. Hmm. di leen dolli courage. Hmm. ñuy wax ne ñun dañuy gëmm benn bët di xoolee benn bët en ce moment. xam nga loolu gëmm benn bët di xoolee benn bët. dëgg la maanaam dañuy focus benn mais aussi duñu kenn kenn duñu nelawal. Mm-hmm. kenn du ñu nelawal parce que am na leen lu fi xewoon en deux mille vingt et un donc loolu jàngal nañu lu bari ba nga xam ne am na leen loo xam kenn du ko bàyyi mu jàll. dëgg dëgg la li may wax patriote yi moom mooy di continuer focus. Mm-hmm. nekk sur l' essentiel bàyyi wax ci def li nga xamante ne si moom la ñu war a def. exact. voilà leneen li ci topp moom mooy di encourager. Uh-huh. ñi nga xamante ne si ñoom la ñuy libéré. Mm-hmm. di leen masawu bu baax a baax a baax. Mhm. au nom de tous les Sénégalais. ndeysaan donc leen di masawu parce que vous vous êtes sacrifié. ndeysaan au nom du Sénégal. ndeysaan li ngeen def noonu waroon nañu ñun kenn ku nekk ci ñun. ndeysaan mais yéen vous vous êtes sacrifié dem tëddal ñu joxe seen yaram dem joxe seen lépp bu leen gërëmul rek duñu gor. ndeysaan parce que tey jii tey seen doole boobu wala seen xeex boobu tey moom moo ñu indil de mooy donc on vous remercie vous tous. di leen masaw. di sukku di leen jox honneur. au nom de tous les Sénégalais. honneur au nom de tous les Sénégalais. waaw da ngeen rayante da ngeen rayante li ngeen def yombul moment bi ngeen di xeex ci boobu jamono am na ñenn ñu ko bëgg mais mënuñu ko xëy na seen jot mayu leen ko. xëy na seen doole mayu leen ko xëy na leneen tamit mayu leen ko. mais on encourage tout le monde ñun ñun ñun ñëpp on se bat pour le Sénégal ki toog ci bureau di liggéey ki toog di jàng ki toog di live ki génn di xeex ñun ñëpp Sénégal bu baaxee rek baaxal ñun ñëpp waaw donc li may wax patriote yëpp di ko wax sénégalais yëpp parce que ñun ñëpp benn lañ nañu focus focus sur l'essentiel bu ñu kenn séparé bu ñu kenn changé sunu idéologie bu ñu kenn changé sunu yoon bi nga xam ne yoon boobu la ñuy jëm allah voilà dinañ doon essayé yéen ñëpp. asalaamaaleykum merci waay grand kooku mooy Malick Diassène. Malick Diassène c'est l'adjoint coordinateur de PASTEF New York ah New York wala UA e, East Coast. East Coast voilà c'est l'adjoint coordinateur de PASTEF e, East Coast. Malick dañ ciy profité wale aussi remercier suñu Aïcha Touré bi de suñu Aïcha nationale. Ah, mais suñu suñu suñu député de la diaspora une femme qui ne parle pas beaucoup mais qui bosse beaucoup elle parle pas du wax. <laughs> waaw xam nga Aïcha. du waxa ah. suñu Aïcha la xam nga combat bi mu ko commencé. Sénégal la ko commencé. c'est grave. yaa ngi Sénégal la ko commencé. aussi benn affaire laa ci gën a naw ci moom. Kona Kona Kona mbër Kona mbër tamit ñu ngi koy fàtte sëñ bi. Kona waaw dëgg la waaw tëbuloo kenn vraiment. waaw dëgg la dëgg la dëgg la kulim juum waaw. am na ay ustaas yoo xamante ne ñoom ñoo toogoon Sénégal tey ñu di ñu ay prêche ndeysaan tey ba yàlla dimbali ñu ba loolu noonu ñëw taxaw ñoom dañ leen jàpp ak leneen ak leneen. ndeysaan am na ñeneen ñoo xam ñoo ngi toog fii. ndeysaan Ousmane dimanche ñoo àndoon man ak yow ci taw. ndeysaan dem euh, dem Washington. ndeysaan comprendre nga. ndeysaan loolu yëpp maanaam combat. Mm. dafay am ñuy indi arme. ñoo xam ñoom ñooy taxaw di xeex. am ñenn ñoo xam ñoom ñooy joxe stratégie. c'est ça le combat. dëgg la mais combat nekkul ne voilà kii dem taxaw di xeex rek. parce que mm-hmm. kii xeex buy xeex te amul arme du dem. ndeysaan kiy xeex buy xeex te amul stratégie du dem. ndeysaan kiy xeex buy xeex te xamul ne amul ñu nekk ci gannaawam di ko couvrir du dem. Mm-hmm. donc ñu ñëpp ñoo bokk combat bi. thank you brother. on remercie tout le monde. merci. mais mention spéciale spéciale spéciale. à nos martyrs. beaucoup merci. bu ñu leen fàtte bu ñu jullee di leen ñaanal. loolu mooy dëgg ku nekk ci diine ba nga ne. Mm-hmm. boo ngeen jullee ñaanal leen parce que tey. Mm-hmm. ñi ñu tëj tañ nañ leen ñiy xeex ñi ngi xeex ñiy wax ñi ngi wax. Mhm. mais ñoom dañoo joxe seen bakkan. ndeysaan ndeysaan. comprendre nga. ndeysaan nañ leen toog di leen ñaanal. ndeysaan aussi di leen remercier. ndeysaan di ñaan yàlla yàlla jox leen kër gi gën. ci kër yi moom mooy Firdaws. parce que ils se sont sacrifiés pour leur pays. ndeysaan et on va jamais l'oublier. ndeysaan leur nom est bien mentionné. ndeysaan dans nos cœurs. jërëjëf grand merci. voilà merci beaucoup kooku mooy suñu xarit suñu frère Malick Diassène jërëjëf voilà donc gars yi je pense que li ñu waroon wax yëpp daanaka xejul li duuf yëpp xejul ci cin li waaye nañu continuer rek maintenir incha allahu rabbi comme ni ma leen ko waxee tous nos encouragements à tous les patriotes maanaam bu doon combat bi deux mi-temps la jàpp ne premier mi-temps bi sax jeexagul premier ñu ngi ci feewu premier mi bi ñu ngi temps perdu premier mi-temps la ñu nekk donc il faut ñu dem deuxième mi donc on na gagné le premier mi-temps mais temps perdu bi nii fa la ñu war a bàyyee patriotes yëpp ñu ñibbi seen kër incha allahu rabbi ak le président Ousmane Sonko léegi nag le président Ousmane Sonko le maître du jeu on l'attendra et on l'écoutera foofu la bëgg a tëjee Ousmane Sonko lañu ñuy déglu loolu du slogan c'est pas un slogan loolu maanaam mooy lii nga xam ne suñu yitte la Ousmane Sonko la ñuy déglu bu kenn divertir waaw dina dialogué waaw dialogué wul waaw wax na waxul bu kenn divertiru nañu may Ousmane Sonko mu génn jàmm ak salaam mu adresser la nation il le fera incha allah donnez-lui le temps incha allah de sortir de rentrer chez lui et d'adresser la nation parce que Ousmane Sonko musul def dara musul tooñ kenn musul wax kenn dara ñoom xam nañu loolu ils le donc damay na sénégalais nañu may Ousmane Sonko yàlla def mu génn incha allahu rabbi mu dem ñibbi këram ginnaaw bu patriote yi yëpp ñibbi seen kër bu boobaa ñun ñëpp ñu dem déglu Ousmane Sonko déglu ko déglu néew ma ku nekk di ko wax li mu war a wax ak ku nekk déedéet. jiitaluloo njiit pour nga wax ko li mu war a wax déedéet il a des les conseillers les plus avancés les plus informés il doit être le président d'un pays il est très très très très très loolu mooy dëgg il est très informé donnons-lui le temps de sortir te ñu déglu ko ñun ñoo indi slogan wu pro la ñuy déglu donc nañ ko exécuter ñun pro rek la ñuy déglu nañ ko déglu mu génn ak jàmm salaam mu wax waaye du benn nit bu nekk fële moo koy waxal wala benn nit bu nekk fële moo koy waxal wala beneen nit bu nekk fële moo koy waxal déedéet pro mooy waxal boppam pro doxul ci ay mbiru diil doxul ci ay mbiru tappale kenn xameewu ko loolu nañ ko may incha allahu rabbi ñu ñaanal ko yàlla génne ko ci tappale bii ñu ko dugal ak jàmm salaam bu boobaa incha allahu mu ñibbi këram te bu ñibbee këram mu prononcé wu senegal yëpp dégg ko moom yàgg na leen ko wax mu ne ñun la bàyyee boppam sénégalais yi ñun la bàyyee boppam. et on n'a pas lâché hein peut on a fait des combats différents à des temps différentes mais on n'a jamais lâché combat bu ne ak moment am def nañ ko ni mu waree on n'a jamais trahi on n'a jamais lâché mais pro. nañ ko may mu ñibbi këram ak jàmm salaam ñu may ko mu wax ak sénégalais yi ak jàmm ak salaam moo gën ku nekk di prononcé wu ñii di tweet waaw moo ñaan lii ñaan la la lépp ay fen la il n'a demandeur de rien li mu mas a wax te ñu dégg ko ñun sénégalais mu ne Macky Sall pour mu dialoguer ak nit moom yaakaar naa ne daf la war a jàpp jaay la doole door la tëj la def la ay mbir il te met le pistolet sur la tête il te dit viens on dialogue pro doxul ci loolu xam nga loolu bu amee on prend Pro de la prison et on l'amène au dialogue xam nga loolu mooy tu as l'arme sur la tête et tu dialogues nañu bàyyi président Ousmane ko génn et quand il sort incha allahu rabbi ñu bàyyi ko ñu déglu ko moom mu wax ndax ñu bari ci ñun jàmm Sénégal lañuy ñaan ñun ñu jàmm noon bi noon bi li mu bëgg toujours mooy ñun ñu continuer comme li ñu wax rek ñu continuer ñoo accuser trouble à l'ordre public terrorisme nangam terrorisme loolu noon bi moo ko bëgg kenn ci àdduna bëggul loolu nañu déglu le président Ousmane Sonko le peuple sénégalais wallahi billahi chapeau à vous vous n'avez jamais abandonné musu leen abandonné man dama leen naw jox leen cër respecté leen voilà donc gars maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu